maa ngi sant yàlla di julli ci yonantoom bi di ñaan jàmm yërmande ak barke yàlla na ko yàlla def ci ñun bi jaahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam bi himmati cheikhu tijaani radiallahu anhu ci barke cheikh ibrahima ñas ak baayam ci barke mawlaana alhaji cheikh omar radiallahu anhu ci barke imam cheikh di ñaan yàlla mu wér lool te yàgg maa ngi gaaral ay kàddu di ko jëmale ci askan wi waaye rawatina askanu Kaolack di leen xamal ne élection yi ñu jëm ñu war a tànn ñi nga xam ne ñoo ñuy taxawal ci péncum ndawum réew ma bu ñuy dogal ci suñ tur bu baaxee ñu nangul ñu bu ñuy dogal ci suñ tur bu bonee ñu bañal ñu mu tombee nag ñu tiit wàllum góor jigéen ci réew mi ndax suñ aada da ko bañ suñ diina bañ ko mu tombeek ñu gis ay nit yuy xeex ci assemblée nationale di dóorante mu tombeek ñu gis fa ñuy dàgg sante xasante te loolu suñ aada daf ko bañ suñu ngor nanguwut ko mu dem ba nit ñi dañu fàtte dëgg-dëgg lan mooy rôlu député ci askan wi bi nga xamee ne jafe-jafe yi yépp dal na askan wi nag mouvement bi nga xam ne wala coalition bi nga xam ne boo ko xisaabee quatorze la lay jox quatorze tolloog wahaabu mooy ñaari baa ak benn yaa muy bennoo bokk yaakaar muy baat bu riche ndaxte buñ bennoowut duñ am doole te buñ amee buñ amul doole rek na sax doomu aadama mënul lu mooy yaakaar ak mébét waaye dogal ci yàlla la nekk kon ñu bo bo bennoo bokk yaakaar yaakaar lan yaakaar na député yiñ jëloon ñuy saaga bu ñu jëlee koo xam ne juddoom dafa rafet maamam taalibe la baayam taalibe la moom taalibe la mu jàng am xam-xam taxawu courant Sénégal ba dëkk yu ndaw ndawaan yépp tàkkale waaye bu amoon xam-xam te amul yar duñ soxla mbiram ndaxte Cheikh Ibrahima Niass dafa wax mu ne taaddabun fi zahiri wal batini bihi yuraqal maru lil mawatini Pape Demba bi tey doon ku am yar doon ku am dal yar googu kilifa yiñ wóolu ba jiital leen suñ digganteeg seen borom ñu fonk ko ci yar googu respectel ko ko nangul ko ko ba pare def ko doom ku ne sa ndey ak sa bàyyi la jur waaye ku la doomoo te jurul la sa jikkoo tax ku la doomoo te jurul la sa njëriñ a tax par démb bi tey njëriñ la néewut jikko ja baax na wax jii may wax na jëmm yàlla rekk a tax ndax musul maa jox ci alalam daf ma war ta jox te yaakaaruma ko xaaruma ko musu ñoo gisante ba tegante loxo waaye doomu aadama soo ko xamee xam ci moom jikko ju rafet danga koy wax du wàññi sa mbaax dara président de la république wóolu ko wóolute boo xam ne ci kal ci qualité moom pas quantité wóolu ko ci njëriñ bu mu am ci askan wi wóolu ko ngir bu ko jëlee yóbbu ko assemblée nationale du bokk ca ñuy saaga waa ji dafa ñëw kër Maam Alaaji Abdoulaye mu ne ko saaga am juróom xale yi naan ko saaga naa saaga naa ndax xamuñu lan mooy saaga boroom xam-xam bi mu ne taar den ko tàqale ci ñaar làmmiñ mooy genn wàllu taar xol mooy genn wàll taar bu sa xol rafetee sa wax rafet rek nit ku yiw nga nit ku rafet nga ak nu la yàlla mën a bindee Pape Demba bi tey xol ba rafet na moo tax mu bëgg ci Baye Niass bëgg ci mboolem sëriñ Pape Demba bi tey wax ji rafet na moo tax musta xas musta saaga te ku ko saaga du fay ñu toftal Ahmed benn Bengelloune ci booram xam nga Ahmed benn Bengelloune moom dafa mel ni ndab waaye nag ndab lu raxas ba mu set parfum ko loo ci def mu sell bim taxawee ak Pape Demba bi tey ngir ixtilaafi ummati la yonentu waxoon ñoom ñëpp di njabootu Kaolack di njabootu sénégalais di ay teg technocrate di ay diplomate yu mag kii taxawu ànd nawle kii taxaw Benno Bokk Yaakaar ñu xàccoo dem bañ naan dañuy def recours Pape Demba na ko rakk xam naa la taalibe bàyyi nga te nit ku yiw nga li ma bëggal kaw la nga ko bëggal man may sa mag damay rocc yow nga dem xoolal lu rafet lii tey yàlla ñëw ba boole leen man nag suma jikko daf ci bokk tàgg nit ki tey su subaa nga xas ko mënuma ko bu nit ki defee lu jar ma tàgg ko tey suba mu def lu jar ma xas ko damay rus tàgg ya ma ko tàggoon du ngir moom waaye ngir suma personnalité ndax jërima ci wàllu alsan samba yaasin sëti biraan jama jàngu la lépp lu ma def wala ma wax ko lu ñaaw rek dama ko àbb waaye moom ma ko ndax du lu ma doonu du lu ma nàmp moo tax ba kaawu sëriñ boobu li ma ciy wax rek mooy réccu naa lu ma ànde woon ak moom maa ngi koy ñaanal yàlla lañ ko àndoon fal ko yàlla kàttanal ko ba mu mat bu paree mu delloo mairie bi ci jàmm loolu rek laa ciy wax yenn saa yi nag noppi day wax lu ëpp maanaam boo noppee lan noppi gi di wax boo waxoon du mbatale kon waa Kaolack Cheikh Ahmed moo leen di wax ne président euh, élection législative lii yii ñu jëm président Macky Sall bu Benno Bokk Yaakaar mooy gañe wax lu ñëwagul ci Sénégal nag amatul xorom ndax ñiy woote wooteelu sëriñ yàq neen xam-xam mooy gañe ci ne élection mairie yi dañu naxoon sénégalais na leen bu ngeen leen falee fal góor jigéen waaye léegi xam neen kan mooy góor jigéen gis neen ku sol mbaxana buróog dañ leen naxoon ne bu ngeen leen wootee mairie président bi day taxawal troisième mandat mairie ak troisième mandat du benn moo tax fen guddut fan mook ñaxam sën a yem boo ko yaakaaree doo keru doo lekk ak lu mu rafet rafet kon fen yooyu weeru askan bi yeewu xam ne président Macky Sall ci yar gi président Macky Sall ci dal gi président Macky la ci mën a muñ gi ak noppi gi waaye nag respecté suñ kilifa yi ku ànd ak moom du saaga kilifa dina yi waaye gis neen parti bi nga xam ne mu yeewi askan wi ci njiital Ousmane Sonko ñi ànd ak moom yëpp dañuy xas su njiit yi dinañ di leen saaga ku ci noppi saytaane nga ku ci wax den laa ger da nga am njëg den laa jënd dem neen ba kaay foofu mi nga xam ne dafa sës si Ousmane Sonko nii di sosal Sëriñ Muntaxa ne mu ngi waaj a génn àdduna subhanallah xoolal wax bu ñaaw boobu Cheikh Mahi mi nga xam ne dafa jóge fii dem réglé ji mbir Soudan nit ñu dem ba mer ba téye fetal senegal yegguñ foofu mu ñëw wax Gàmbi wax ju màndu Ousmane Sonko di ko gaaruwaale ba ku ko déglu xam ne moom la wax ñu ànd ci moom dal Cheikh Mahi carrément dal ko alaaja Abdul Aziz Si Adda baax ñu dul julli sax den koo respect njabootam kenn musul leen a xas saaga ci nitu Ousmane Sonko yi la man Cheikh Ahmed maay wax ak yow na la boo bëggee loolu dañ te dakk jugal le 31 nga dem def ko ci Benno Bokk Yaakaar fal Pape Demba bi tey fal Ahmed benn Bengelloune waaye nag mbooloo mi dafa am ñu ànd ak ñoom xam nga Benno Bokk Yaakaar li ci gën a neex mooy ñoom ñëpp président la ñu bëgg te moom la ñu liggéeyal xoolal Modou Ndiaye Rahma ginnaaw bi mu ñàkkee mairie bi man man bu doon man damay bàyyi parce que dama naan li ma lebal askan bi fayuñ ma ko li ma leen jox ñu nangoo jël suma alal ba ma soxla leen ñu war ma man damay bàyyi mais bam daanoo keroog wax naa ko sëriñ bu ma ne ko mun jaay ma de dama ko déglu Alfayda mu ne combat baa ngi door a commencé ban combat waaye ndeke nit dina wax loo xamagul moo tax di wóorul combat bi mooy wóolute bu président bi am ci man dana ko wanne gor la danaa ko defal lu ko ëpp moo tax mu wuuf magam Pape Demba bi tey mu uuf rakkam benn Bengelloune ànd ak ministre Mariama Sarr ànd ak ñeneen ànd ak ñeneen biir Kaolack ñëpp booloo takku def benn say ngir liste bi gañe waaye nag ku xam Saalum ku xam waa kawlak xam ne lii rek leen mun a def ndax nag leen di gor yoo xam ne dara jëndul leen lu mooy teraanga dara jëndul leen lu mooy yar loo am di ko yóbbu Kaolack da ngay fekk mu late fa te mu ñu koo jaay xam-xam a nga yem ci maarifatu billaahi fa lay ballee wërsëg a nga yem ci mën a faj soxlay jaam ñi ay faj soxla kon yal na yàlla dëggal yaakaar yi nangu ñaan ak sëriñ si maa ngi ziyaare alxalifa cheikh mohamad mahi di ziyaare cheikh mohamad mahi Cissé di ziyaare imam cheikh mi nga xam ne mbëggeel guy daw ci suma xol bi moom moo koy dawal su fekkoon ne visité naa suma xol bi gis na benn mbëggeel ci suma xol nekkut fa pour moom suma dund dootul am njëriñ wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin